tey ci suba si ay yëngu-yëngu lañu nemmeeku fële ca daara ju kawe ja université Cheikh Anta ba mu waraloon dem beeg dikk bi amoon ay jafe-jafe. bon loolu noonu nekkul lu ñuy rafetlu quoi parce que bon gis nañ à chaque fois su euh, manifestation amérique étudiant dañ si euh, dugg parfois mën na dégénérer. indi ay difficulté si stabilité université bi si jàng bi ay perturbation yu bari donc loolu noonu nekk lu ñu rafetlu aussi di gën a woo étudiants yi à beaucoup plus de responsabilité pour que ñu gën a xam lan moo leen di xaar lan mooy seen rôle lan mooy seen mission parce que bon nekk ñu université uniquement pour politique bien vrai que politique baax na mais lañ war a nekk université pour jàng sàkku xam-xam xam boobu noonu ñu mën si yor Sénégal parce que Sénégal dafa soxla jeunes yu euh, conscient jeunes yu am xam-xam yoo xam te ni ñoom ñooy contribuer si développement Sénégal fii fii ak euh, at yu ñu jëm parce que étudiant déwén wala at yi si yu néew ñoom ñooy diriger dëkk bi ñoom ñooy nekk élite bi je pense aussi euh, bu ñu tollowee si jàng dañ si war a def fulla ak fayda jàng wut ay diplôme moom jotee après mën nga politique mais warul tax ngay dugg si violence et tout ça bon loolu moom yàgg nañ si wax yàgg nañ si aussi def ay commentaires je pense également nekkul lu nga xamante ni à chaque fois am na solo parce que bon jàpp mën nañ jàpp ne affrontement su amee ñu nekk fi pour sécurité bi mais des fois y a des moments yoo bon peut-être que seen présence amul solo noonu te aussi seen nekkee nag étudiants également ñu si bari nañ koy ñaawlu nekkul situation bu normal et que chaque fois day am ay difficulté entre ñoom à chaque fois alors que bon ñëpp ay Sénégal lañ alors que y a de ces policiers yoo xam te ne am nañ ay frères à l'université y a de ces étudiants yoo xam te ne am nañ ay frères si policiers je pense également loolu warul nekk euh, problème bu à chaque fois su dara amee rek ñu profité wu di indi problème di indi violence loolu noonu vraiment dañ koy déplorer te aussi tafetlu ñu ko euh, situation yooyu ñu ko fay noté fi bari na euh, du coup man rafetlu ma ko rafetlu ma ko parce que. même bu fekkee ne comme par exemple loolu c'est forcé mu am parce que ka camp yi bokkuñu en fait camp yi bokkuñu te ku nekk ak sa sa mentalité fi mu yem bokkul rafetul rafetul premièrement te tamit duñu duñu nekk à l'aise parce que boo xalaatee ne bunt bi am na ay euh, force de l'ordre yi fi nekk tout le temps yow tu te dis ni genre li fi nekk wóorul parce force de l'ordre yi ñu ngi fi te dañ fiy bari te en fait sa xel sax dadul dal pour que nga nekk ci biti te en plus doo nekk très à l'aise te université bi c'est pour les étudiants donc loolu mën nañ ko éviter en fait mën nañ ko éviter lu bari. ñu xamal ni takk der yi ñoo ngi fa taxaw ci buntu bi jëm ci campus universitaire yi Gana yu tey xaar lii lépp nag moo ngi am ginnaaw tey ji ñu amal procès en appel bu Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang